Euh, di ñaan euh, yaakaar seen avenir fii Sénégal moo tax ñu nekk fii depuis boobu ba léegi mosuñoo bouse dem fenn mais dem 2018 ba léegi daanaka ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci entreprise bi bàyyi sax ñoom ñoo la gën ci ay situation yu nekk mais ñun dañoo ànd ak sunu ngor yaakaar ni lépp lu doomu aadama di am liggéey mook koy may. te chinois yi ñu nekkal wax dëgg yàlla xaw ma ci chinois yi la xaw ma ci chinois yi ñun ya fa nekk mais ñun mënuñoo sax jakarta sax mënoo koo am mënoo sax tabax sa néeg ba di ko defar te ñun avancé wuñu amuñu dara ñuy ñaan yàlla nag ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekk ci kaw man ñoo gëstu man ñoo jàppale. waa jafe-jafe mooy ngay liggéey chaque jour te wax dëgg yàlla mënoo am xaalis te la nga lay fay. mën naa ne argent de poche la argent de poche dañ lay jox am na ci élément yoo xamante ni tey jii gis man man bokk personnel man gisuma benn prime ta yaakaar ni mu nekkee ci man noonu la nekkee ci ñeneen amuñu benn prime boo xamante ne tey jii ñoo ngi koy jot ma damay xëy taxaw di liggéey ba kare may wàcc li tax ma koy def Euh, bëgg sama liggéey ak bëgg yenn élément yoo xamante ni tey jii bu ñëwee yàlla xam ne duñ ñibbi maanaam di gën a jàpp liggéey bi gën koo respecté gën koo jox cër xam ni doomu aadama lépp lu mu am suba ba ngoon liggéey moo ko may. lan ngeen di xaar ci nguur xanaa mu gëstu ñu jàpp nañu jàpp nañu ba baax a baax a baax a baax lépp loo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla ay doomi réewam ñoo liggéey moo ngi leen koy may ñun ne nangu doon ko def mais nag gisaguñu sunu bopp ci ci nguur gu bees yi fi nekk ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla di ko dimbali ba dox tànkam wala mu yabal fa ay ndaw wala ñi ñeen ñu fa mën a nekkal ba ñëw fa ba jàppale ñu ba teg ñu ci yoon bu baax boo xamante ni tey jii sunu fukki xel ak juróom-ñaar du mës a nekk ci génn réew mi wala ngay jaar ci ay gaal wala yu kenn xamul mais bu fekkente ne même situation moo fi nekk man moom pare naa pour gis gaal jaar fa dem bu fekkente ne damay dee sax jar na ko ndax awma lenn lu dul jéem a xool sama sama samay waajur nu mu leen man a jàppale te gannaaw yàlla leen rek mën ko mën a may muy liggéey yàlla def na ni patuma laggaw ma am naa samay cër te it nangu naa liggéey mais nag wax dëgg yàlla depuis 2018 ba léegi nga nekk ci entreprise di liggéey wax dëgg yàlla liggéey bi mu war lépp nga di ko def te mënoo cee gis sa bopp salaire 100000 francs bu ma nekkee ci usine ba léegi musuma ko am musuma ko fee fayeeku salaire 100000 francs musuma ko fee fayeeku bu baax a baax a baax a baax a baax dëgg yàlla bu baax a baax a baax xam nga bu fekkonte ne tey ji danaan entreprise bi doxul ñi fay liggéey ñun xam nañ entreprise bi doxul mais entreprise bi ñaata entreprise la jur tey jii mën naa laa citer cinq yoo xamante ni ñoom ñoo ko moom ñun liggéeyatuñu ay millions ay milliards la ñuy produire mais milliards ay nit ki di ko liggéey ba pare te mënul am cent mille salaire cent mille lan mooy problème bi. est-ce am problème ñu yóbbu ko ay espace de travail ñu naan laay maanaam mbir kenn mënul laa wax maanaam mooy problème bi quoi. ñoom bu fekkee ne dañ leen a gërese ñu nga xamante ne ñoo war a mën a taxaw ci suñu mbir ñu xam ne ñi ay Sénégal lañ comme ñoom ñu war a taxaw seen i mbir dëmal leen ah mooy njëkk de moom mooy njëkk ndax responsabilité réew mi yëpp mu ngi ci loxoom moo ñu yilif yële yilif ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen ñu wax dëgg yàlla ku nu taxawoo jàppale lan bëgg bu dee liggéey rek nangu noonu koo def lépp li liggéey bi laaj suba ba ngoon ñoo koy def bu fekkente dañoo war a jot nañ ko jot bu fekkente ni euh, dañoo war a yokk suñu salaire pare na war wax dëgg yàlla war nañoo mën a yokk suñu salaire tey jii ni euh, bu bu fekkente ne sa salaire bi am na am na doole dëgg tey jii da ngay am compte bancaire la ñuy ubbi ju ci viré sa xaalis su bëggee def euh, su bëggee lépp lépp loo ci bëgg a liggéey nga mën koo liggéey mais amuñu lenn loo xamante ne ne ñun de poste la ñuy jox xam nga ab salaire bu fekkente ne dañ la koy fay salaire bi war normalement dans les normes war na naa mën a satisfaire mais fii ñaari élément nga fi gis ñooy liggéey balaa mois bay day dañuy dem bureau ñu jox leen argent ay lebal leen ay trente mille wala ay vingt mille francs léegi après buñ la faye matu ko jégewu ko sax nga naan ma ni jégewu sax loolu soixante mille francs ci ay góor yàlla li ñu fi dégg yëpp lu waay wax lu nekk am na lu des lu waay wax lu nekk am na lu des tey jii nii vélo pédale sax mënuñu ko am ndax lan salaire yu bon te chinois yi laa li ñu yor ci ay oto wallaahi alazim nouvel modèle yu doog a wàcc fii nii 2024 bi ñoom ñu ngi koy dawal ñun déggoo ma de lu jënd velo sax vélo pédale laa bi ngay pédale pour sport mënuñu ko am du góor du jigéen du mag du ndaw góor yëpp bàyyi nañ ndax métti métti yu ñuy dund foofu noonu yaa ngi dégg bu baax ñu leen di licencié si ay affaire yu ñàkk fayda bu ñu la bëggee dàq dañ lay kereel ay affaires yoo xamante ni yu ñàkk fayda la woote bi nag autorité nekk Thiès monsieur le président Diomaye fay monsieur le premier ministre Ousmane Sonko nañ wax ak autorité nekk cees ñu def seen liggéey parce que son nañ si xarum tabaski yi sonn nañ si enveloppe yi yu ñu leen di ger nañ def seen liggéey extension de travail Ya ngi dégg nañ ñew fofu non xol élément yi lu ñuy dund metit bu ñuy dund ñu waxtaan ak élément yi mo gën ñuy jadd biro ñu leen jox ay enveloppe ñuy wàññeeku wat wa di ñuy sacrifier jigeen ñaangi ni dañuy tok di liggéey ba son ko ci gis mu ngi émorite mënuñoo tane Ya ngi dégg bu ba 8h de temps la 30 minutes moy pause bi te 30 minutes manam du dara kaaru gudi kaaru bëccëg lepp salaire bu ñoy yam te lolou du yoon goudi war nañ ko augmenter bu sen affaire yi doxé ñu régler 3 quarts bu affaire yi doxlé ñu def 2 quarts parce que affaire yi moy lolu man sama faaba feebar na ba dé ba ma ñëwee trente lañ ma fay lolu du dëgg du yoon té nañ ma té man ki la contrat contractel la waaw CDI laa amuñ dara amuñu ko dara amuñu ko sa carnet sa laa boo feebaree carnet buñ la joxon nan la ay ki yoy non IPREM yoy non bo feebaree boo demee hôpital dañu la koy dagg sag weer dërëm duñ la ko fi bàyyil man dañ maa dagg dagg dagga ba xamul lu muy niru depuis 2018 ba léegi maa ngi fii nii jugee ñoom Dakar ñëw fii nii